xamante ni moom moo di njiit bi tey ki nga xamante ni bu génnee moom moo tax ndax li muy sollu ne moo koy contrôler euh, moo di Kamou Seck kon euh, mu Kamou Seck euh, se relation ak Youssou Ndour waaw loolu moom dina ma neex trop Youssou man duma ko fa dox Youssou Ndour sax yéen turu artiste bi ngeen di wax mais man dama ko naan son excellence monsieur Youssou Ndour parce que li ko waral mooy Youssou suñu jaar-jaar du tey fi ma jaar ak moom laa bëgg wax du tey parce que je très bien que euh, avant may liggéey ak Youssou Ndour dama doon liggéey ak euh, nem si yàlla Ambroise Gomis yàlla na suufam sedd si kaw sama mag jooju man suma xarit la woon maa doon complice am vraiment jaar naa bëri ak moom moom moo tax ba ma doon dugg bay liggéey fondation Isabelle Diouf nekk si say protocole madame Abdou Diouf si côté boobu ñu may nekk ak moom di nekk ak moom di nekk moom ci ay soir de gala ay cérémonie yenn manifestation Youssou Ndour di fa ñëw de prestataire moom yëpp Youssou nag xam naa nag dama ko neexoon période boobu mi sama façon liggéey man nag boobu xaw moon orchestre yi parce que bon li ma fi doon nekk daawul bëri mais ñu dem ba ci biir ñu dem ba nga xamante ni gis naa ne Youssou bëgg na ma liggéey ak moom man tam bëgg naa liggéey ak moom parce que boobu ñu ngi koy soog a nommé ambassadeur de l'UNESCO xam l'UNICEF bon à travers Mbaye Dieye Faye à travers Habib Faye bi suma xarit boobu yàlla na suuf sedd si kawam ba ñu ngi koy jooyee ba léegi noppeeguñu ku baax a baax bi ba ñam bi ba yaa suma xarit la woon suma lépp la woon man moom ak Mbaye Dieye ak Youssou on avait des boo xam dafa yàgg Youssou maa ngi commencé liggéey ak moom en 80 1996 boobu la alet ni mënoon liggéey ak euh, yenn kilifa yi si dëkk bi ma ñëw di ko côtoyer di ko jege di xool ay messages mais ma gisoon ne man sama sa sama xel dafa ma joxoon ne kii ma waaj yi mën naa liggéey ak moom mun naa ko jàppale si yu bëri parce que est avec des musiciens il n'est pas des gens yoo xamante ni des gars yoo xam ne ils euh, des gens diplomates amu fa woon man ma ñëw di méttoon na nag au début xam nga rek foo dem bay metti mais dem nañ ma xam ne j'ai des bons rapports avec Youssou loolu indi sama Youssou Ndour ba année bi man ak moom ba ñu nekk ba 2000 bi ba ba de 2019 euh, bi ñu nekk ba léegi man ak moom ñoo nekk. léegi Youssou monsieur le ministre son ambassadeur le PCA du groupe Futurs Médias mooy suma xol maay xolam. waa Europe xam nañ ko waa Asie xam nañ ko waa Afrique dëkk Afrique xam nañ ko Sénégal xam nañ may kan. loolu sax euh, dinañ ci wax ndaxte nee nañ il suffit rek mu xool la nga xool ko nga xam li muy wax. loolu dëgg la. dafa am benn affaire boo xam ne am sama diggante maanaam moom ak Mbaye Dieye fay ak Abi Faye nem sa Abi fay samay complice lañu ñu dama ko su ma xoolee ba jàkkaal ma xoolee rek xam naa li mu bëgg a wax ci biir woy muy woy dina dina ma def benn geste boo xamante ne dina xam lan la ma wax te man su ma ko xoolee am na lu ma koy wax ak moom ci loo xamante ni ci mbirum liggéey rek maanaam ci mbirum liggéey bi muy liggéey musique bi ak nit ñi fa nekk ak maanaam yu bëri daal loo xamante ni intérêt la te xamul ne nit ki mi ngi fii walla nit war na xam ne nit mi ngi ci place bi muy nekk di liggéey noonu ba pare dama koy xool nag man soirée du ma baal ñëpp xam nañ loolu man moom lay concentré di ko xool rek ci kaw ba suuf buy dugg maa koy dugal ci biir seen mu ko seen bi suy wàcc maa koy wàcce oto bi maa koy dugal maa koy génne si oto bi bu ñëwee dinaa xool ni mu solo des fois du ñu bokk yoon ma jóge sama kër moom mu jóge am ñëw mais balaa mu jàkkaarloog adduna bi nit ñi di ko xool dinaa ceytu xool li mu sol lan la man sax yi ma gëm ak moom bokkul moom c'est un artiste mais man dama gëm sañse booy dama bëgg kub solu sama xol. mais mais bëgg so bëgg solu googu sax dafa feeñ si yow. non am c'est pourquoi Sénégal Sénégal nouvelle xamuñu mais man bi may nekk si affaire mode <clears throat> boobu. ñoom Papa Wemba Koffi Olomide mi ngi soog a nekk bees y' a beaucoup d'artistes zaïrois yu fi doon ñëw dama bokkoon ci comité d'organisation yooyu nekkoon maanaam y' avait que moo la doon doon indi fii nem si ak Demba Ndir yal nañu suufam sedd sama mag jooju ak euh, ku ñuy wax Baye Ciss ñi di wax pigeon nii Baye Ciss xamuñu koy Baye Ciss Baye Ciss maa ko xam kii gars yi ne le milliardaire la ba ma koy xam fréquenté mooy Youssou Ndour kooku fi mu jaar ak man. dafa bëri bëri na trop Baye Ciss man moom fu nekk jaar nañ fa su ma duggee ci milieu boobu si kooku la njëkkee Ambroise Safo la ma gën a xelmatee si waajooju parce que boobu nekk gu ma man kañ maa ngi koy maa ngi fekkaat New Pop premier magasin prêt-à-porter au Sénégal New Pop bi nekk rue de Baye ñun ñoo fa doon nekk par ngoon la sol suñu ay jean labis ay sancak takk ay fulaar suñuy fulaar yi nekk angle Ponty bi diggante rue de ak euh, café Ponty dañu doon saan bu ñu soloo ñun kirik la ñu woon boobu maa ngi dëkk immeuble Brière en bu ñu tax noonu bi biir ville noonu dugg si cafétéria ay Aldo plantation dañu doon xool demoon naa ba nekkoon naa fi danseur temps Dakar City Brega ci danseur lañu lañ ba bokkoon boobu ñu ngi Jolof ñu ngi Cosaan ñu ngi woon Sayel ñu ngi Brimel bi nekk Bel Air dañu ne ba chaumière bu Ndar Sangomar bu Thiès on a tout fait étant jeune moo tax dara safuma dama foo suma àdduna teg ko à côté jëm côté liggéey bi nag liggéey bi ma ñëw rek yàlla si sës ma si sunduur 94 ba heure bii man ak moom ma nekk bras droit am nekk xaritam mën naa ne sax du Youssou dañoo bokk ndey ak baay parce que fi ma jaar Youssou Ndour sori na te début bu metti woon na mais muñ rek mais njabootam famille xam nañu Youssou fu mu toll ci man man mun naa ne Youssou mooy suma man amatuma yaay amatuma papa mais Youssou mooy sama papa mooy sama yaay parce que confiance bi mu am ci man duma ko mosoo war te may nitam te ku nekk am nga sa ombre man mun naa ne mbéjee fe dee ne sama jumeau mais man may maanaam taqandeeru yuy sundoo su bëgguma dara lu ko metti si àddunaam bëgguma lépp lu ma koy defalee rek bëgg naa mu nekk lu neex ni ko tubaab bi dem baraañ ko day dem ba Europe sa tubaab bu am ak man sax tubaab bi di ma laajte mu ma koy wax ay kilifa ay ambassadeur ay kilifa maanaam ñu nekk fu nekk jaar naa foofu moom mais c'est nit boo xamante ni Sénégal war na war nañu dugg xoolaat kan mu Youssou Ndour war nañu xool Youssou Ndour war nañu xool jëppinam war nañu xool ay wayam bu dégg musique bi rek déglu voix yi muy wax si biir waaye mën na yar ñu bari parole bi mën na yar ñu bari te mën na yee ñu bari te Youssou Ndour xoolal ku simple la nit bu simple la bëgg àdduna bëgg li ma neex sama mooy loo ko wax mu ne sama Sénégal la ñor Sénégal moo ko ñor gis na ñaati nit lay lay lay defar bi te kenn du ko xam ñaata nit lay dimbali bi te kenn du ko xam ñaata nit ñooy ñu lay emploi chaque weer mu fay leen te du la sonal ci dem mën na romb sax nuyu la avance dem kilifte boobu du ko wane dafa simple mais nag c'est un grand monsieur bu ñu demee ba Nelson Mandela ñenn ñi wax war nañu coytu ba exemple amoon na benn exemple si Obama gis am na yeneen yuy ñëw te gisaguñu am na xam ñu ngi fiy dugg di dugg génn Sénégal te xamuñu ku ñu seet fii mais il est un gars boo xam ne il est trop discret il aime la discrétion bëggul di def di ko wax day jëf rek moom mbiram jëf rek ba pare effacé wu nag mel ne du moom même nga génn ko télé sax man des fois dama koy jàng xam ne sax waa ji forcé nañ mu dem rek mais bëggul. moom lépp lu muy def da koy discretion te noonu la mel si njabootam noonu la mel si ay xaritam te fàttewul nag ay xaritu démbam yi nag ay papu démbam yi non fàttewul leen de man xam naa dara te c'est un monsieur boo xamante ni xamaguñ ko Youssou Ndour dañ dem ba ci kanam. ami Cheikh internet def na li mu fi jot wax ci Youssou Ndour leex na ndaxte li ma gën a marqué ci waxam ji yëpp mooy la reconnaissance ah ndax Youssou Ndour moom Youssou Ndour Sénégal la Youssou Ndour Afrique la Youssou Ndour ñëpp la bien vrai que nit di nga ko gis de loin nga jàppee ko nit ko xamante ni ku tëju la waaye moom mi ko fréquenté depuis 1994 euh, 94 ba tey mu nekk ak moom aussi mu nekk nit ku modeste moom it parce que gis ko nii rek aussi wane na ni Youssou Ndour ndax moom mooy comme ni mu ko waxee takkandeeram ba tey du ñu wax lu dul ànd ak moom ci beneen mbir muy sa cursus mannequin ndax nee nañ kat kii mannequin bu mag la ah wane nga ko nekk instant bi surtout yow doo ndar-ndar sax dégg naa. <laughs> waaw il faut Sénégal yi xam dara man ndar-ndar laa ci ndey. ndar-ndar yi moom en général kenn yemuñu si saako ceeb beeg lekk ceeb beeg naan yenn yi mais solu ndar-ndar yi la. waaw ndar-ndar laa ci ndey ci bàyyi. suma yaay mi ngi soxe koo Gànjool suma baay soxe koo biir Ndar ñun ay ndandar lañu te ndandar jaruñu wax mooy kan ñun dañoo bëgg suñu bopp te on est fier d'être des Saint-Louisiens waaw fi nga bëgg li nga ma jot a laaj léegi waaw affaire man kii naa boobu man dama newoon te dootuma si waxati parce que maanaam jaar-jaar la woon beneen mbir bu ma bu ma ñëw ci man la <clears throat> ma exploité ko maanaam je suis le premier mannequin sénégalais ci góor ñi j'ai fii être le premier mannequin professionnel au Sénégal te bi ma koy def dafa am euh, ñaari doomu aadama <clears throat> ñoo xamante ni su may mag ñaar ñëpp wan nañ ma ginnaaw mais yal na suuf sedd seen kaw muy Demba Ndir ak Ambroise Gomis ñoo ñoo tax ma gën a def métier bi parce que dañ ma xool rek xam ne man mii arrangé naa leen si yu bëri ba pare ma yéen dëkku Afrique yi ba ñu bëri dañu yàggul sax bi ñu xamee ne man Sénégalais laa jamono yi may solu fii mun naa ne prêt-à-porter nekk Sénégal yëpp laa wax je pèse mes mots prêt-à-porter nekk Sénégal yëpp maa leen lancé jamono